mayo bi rafet na ah. mayo dafa rafet ah. waaw boy mayo bi rafet na de bon bàyyi leen dinaa mayo bi dafa ñaaw mayo bi dafa rafet. bon man je suis pas sûr avec les matériels mais mayo bi rafet na rafet na de. bon rafet na.